Ah, bonsoir salaamaaleykum mbokk déglukat yi mi FM dal leen a jàmm seen émission sans filtre di jotaay ndaw ñi ah, fii ci Rewmi FM mercredi bu jotalee am 15 heures jàpp 16 heures ah, tey ñu war a dalal Tanor Dieng di cofondateur club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal euh, ñu gën ko xam ci CLES euh, ñu fas yéene euh, waxtaanee yaa des jeunes naka la ndaw ñu war a def rek ba mën a entreprendre ak fan la ñu war a jaar ba mën a entreprendre doon ay leader waaye ñu nemee ko ni dafa accuser quelque retard woona ma mi ngi ci yoon bi mais teew la ñuy daal di tàmbali émission bi ma ànd ceeg tey Mofal Mofal ma bàyyi la nga nuyoo te mbokk auditeurs yi balaa nga ñëw ci rubrique actualité. ñi nga xamante ne ñuy déglu ñëpp ci euh, Rewmi FM ak ci li nga xamante ni mooy suñu plateforme digitaux yi lu ci mel ne rewmi point com ak www euh, rewmi point com mm-hmm. euh, donc di leen nuyu rek di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ngi déglu jamono ji seen émission Espace mm-hmm. donc tey ñu war waxtaane lu am solo muy entrepreneuriat des jeunes ci seen Sénégal mm-hmm. ma fàttali Tanor Dieng mi ngi ci yoon bi mooy le cofondateur du CLES club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal ku ci bëgg a ànd ak ñun wooteel ci 88 628 84 4 plus 1 wala 88 628 85 85 nga bës 1 wala 88 628 86 86 nga teg ci 1 bu dee biti réew nga nekk da ngay def 33 841 21 40 moo faal euh, rubrique actualité li gën a fës ci bës bi. waaw voilà tey nag dama fiy teewal ki nga xamante ni mooy Modou Fall Yeumbeul dafa nekk ci li nga xamante ni mun nañ jàpp ne moom mooy wàccaayu tabaski bi ah, donc ñu koy jaajëfal lu baax a baax donc tey euh, ñaari sujet la ñu andi en attendant suñu euh, arrivé wu invité muy bu njëkk ñu wax ci li nga xamante ni moom mooy euh, troisième vague bi nga xamante ni mi ngi ci biir dëkk bi mhm. euh, di Sénégal 733 euh, cas ci li nga xamante ni mooy tey ji donc mu nekk ay record yoo xamante ni saa su nekk ñu ngi koy amuñu ko am première vague amuñu ko deuxième vague parce que semaine bee passée ñu wax ne Sénégal battre na record ba mu amee li nga xamante moom mooy 500 et quelques yi tey ñu toll ci 733 cas ci li nga xamante ni moom mooy Covid 19 bi ak li nga xamante ni moom mooy ñoo nekk ci cas grave yi muy 19 cas grave mhm. donc mu nekk boo xamante nekk nii alerte la bu mag a mag a mag boo xamante am na ci biir réew mi. Mhm. parce que relâchement bi nga xamante amoon na ci sénégalais yi parce que du wax africain mais naan sénégalais yi. Mhm. même fekkee dañoo ne Afrique fi nekk nii euh, taux bi mu gën di yéeg donc alerte la bu mag boo xamante ni suñu ay kilifa war nañ cee mën a wax. Mhm. Euh, ñi nga xamante ñoo nekk ci biir réew mi aussi war nañ cee mën a àddu banaa moo ëpp loxo parce que euh, fi nekk ñu bëri naa ëpp loxo de. non ëpp ëpp na loxo sax parce que ñu si bëri fi nekk nii dafa mel ni sax gëmatuñu feebar bi. Mhm. faatuñ ko parce que buñ bay wax 733 teewul Sénégal yi ñi ngi takkuñu masque si oto yi. Mhm. Euh, jëluñu benn restriction ñi nga xamante ne mooy feebar boobu. Mhm. Euh, nga xamante ne nekk nii euh, waa waa SAMES e wax nañ ci ne nañ jéem a xool naka la ñuy sursoiré li nga xamante ne mooy yenn. rassemblement yi am muy religieux yi muy politique muy yëpp loo xamante ni am na ñu daal di koy waar mhm. mais même boo duggee sax si oto yi dangay gis nit ñi fi nekk nii boo leen sa ay waxu euh, troisième vague dañ naan ay dóor la rek mhm. euh, dañoo bëgg a xañ li nga xamante ne moom mooy suñu tabaski bi loolu la ñuy wax doguma la te boo déggee suñu spécialiste cent boo jël. presque moitié bi c'est des jeunes. Mm-hmm. ay jeunes ay jeunes parce que. bu njëkk bu njëkk néew na woon jeunes yi koy am ba mu sonal leen. mais léegi day mel ni tendance bi dafa renversé wu. xam nga tendance bi mën nañu dal rek da lay sonal. mën nañu li ko renversé instant bi mooy si li nga xamante ne mooy vaccination bi jeunes yu bëree bëri bëri ñoom nangu ñu na vacciné wu. Mm-hmm. parce que day jàpp ne. Euh, benn euh, supposition la ñu am ci vaccin mooy dañoo bëgg a wàññi population mondiale du genre moo tax jeunes bëri demuñu mhm. la plupart mag ñoom ñoo dem dem vacciné yu parce que dañoo wax nañu nañu euh, gën priorité li nga xamante ne moom mooy mag ñi am plus de cent ans ak ni mel mhm. ak yenn ñi xamante ne ñoom ñoo nekk structure santé yi mhm. moo waral buñ ne variant bi am na ñu dem sax bay wax benn quatrième variant boo xamante moom mooy lambda. Mhm. Euh, am fa nga xamante moom mooy Pérou. Pérou fekkee sax amoon na ci mois de euh, décembre mais instant a mën a mhm. mhm. nekk nii bu ñu demee ba naan sax euh, est-ce que ñi nga xam yi am mun nañoo résister face au il faut ñu dem ba ay troisième dose. ba quatrième dose alors que Sénégal fi nekk nii seen ay vaccin doyul. doyul non seulement doyul. am nañu jël première dose ba nag amuñu donc fu mu nekk am na ñu bëgg a dem vacciné wu mënuñu am vaccin. da nga da ngay da ngay inscrire ñu ne inscrire da nga toog ay jours ay mois yi mois du ñu mës a woo. Mhm. donc ah, ah, donc dañ ñi nga xamante ne peut être ñoo war a vacciné wu. Mhm. ak ñi nga xamante ne ñoo war a am deuxième dose ak ba ñuy wax naan troisième dose ak lu ñu mel donc mhm. jafe-jafe la ci biir réew mi te Sénégalais fi mu nekk nii faaletuñu feebar bi te feebar mi ngi ne saax si dëkk bi donc xam naa fi mu nekk nii état bi te waxu si ba léegi ñemewul taxaw si kanam Sénégal naa leen couvre feu parce que fi mu nekk nii bu ko waxee dëkk bi tàkk ñemewul wax Sénégalais yi na leen euh, dañuy def li nga xamante ne moom mooy restriction wala lu ni mel leen la a kii moom mooy exiger li nga xamante ne moom mooy euh, euh, geste barrière lu ci mel ne mm-hmm. masque yi mm-hmm. xam naa buñ ne buñ ne dañuy dañuy eh, dañuy day xaw a a mais nañu exiger li nga xamante ne moom masque yi foog ñu tere ndaje yi ndax boo faal boo gisee kaay nu mu explosé di seetal rek ay deux semaines Mhm. ak ci ginnaaw ndaje yi bëri woon na fa suñu politiciens. mais mais ndaje yi ak ndaje lu tax mënuñu si wax. tàmbaleeg suñu njiitu réew tàmbaleeg dëgg neexul tàmbaleeg suñu njiitu ma Macky sàll li mu dajale bëri na. ak ñun dañuy rafetlu lu kii def. Euh, ah, Malick Gakou keneen ak keneen li mu ah. dajale tam bëri na. pour nëpp pour ne pas faire la promotion. de de je pense que euh, résultat bi moo nekk di wane wu nii non a nga résultat bi mun nañu wax ne du mooy wane wu nii parce que yenn tournée yi si euh, région yi la cas yi bëreegul foofu tant que amaguñu cas yoo xamante ne dafa dafa si région yi mën nañu wax ne loolu impact. mais la bëri Dakar la bëri ci région la doon mais ah, fekkoon loolu la kon Dakar soit ñoo dem contaminé fële wala ñëw contaminé waa Dakar donc nañ nañu xool rek di rafetlu li nga xamante ne peut nañu wax ne Malick Gakou def na ko mm-hmm. hausse commencé na am egguñu woon sax si ay ay cent ay quatre vingt dix ak ñu moom dafa arrêté na lépp benn activité bu muy def. Mm. gis ne nag ñaara fi nekk jamono ji di def ay ay activité muy euh, président Macky ak ki xamante ni moom mooy Bougane Gueye Dany. Mm. li ñu war def moom mooy sursoir la ñuy def. Mm. bax étudier li nga xamante ni mooy jafe-jafe bi ñu nekk parce que lii bu jógee fi mu nekk nii am na ay événements yu ñëw te événement yooyu di ñëw dafa am solo ci biir réew mi. Mm-hmm. économiquement laa mën a wax ak socialement donc bis restriction rek dina andi benn frustration bi muy andi. Mhm. pour le pour parler di màggal. Ah, mais bu ñu ko deful tam ci génn. parce que màggal def nañ def nañ CLD démb CRD moo des ak CDD bi. nee nañ la ñëpp ñàkku. waa ñëpp ñàkku yaa ngi dig ñàkku te ñàkk amul ci dëkk mais loo lan ngay ñàkkoo. waaw ah. xanaa xanaa buy bisaab ngay jël ñàkkoo ko xanaa. <laughs> donc nañu nañu nañu xool vers l'essentiel. wala ak lingom. ah peut-être loolu bu ñu ko jëwee essayé dinañ kii. donc en tout cas daal de grâce état bi daal nañu sol masque yi nañu respecté les gestes barrières. mais masque yi est-ce que mën na dara ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy variant yi am. ah mais nga essayé rek nga jéem. comme que vaccin moom moo fi nekk te vaccin bi nee nañ ñi ngi xaw a lim laamee ak yooyu te dem nañ ba naan dañoo dañoo bàyyi dañoo euh, euh, sacrifier ñi nga xam mooy africain parce que ba léegi mënuñoo jox benn kii li nga xamante ne mooy pays africain donc Sénégal nee nañu defar vaccin nañ accélérer vaccin au moins moins même bu fekkee sax am na ko wax mu ne euh, phase test yi ñu yor ko sax testé ko ci euh, Séné si si population bi au mhm. moins buy am développement mu am développement ci Sénégalais mais lu ñu mënti xaar muy gën di dem euh, jafe-jafe lay andi. Mm, en tout cas métti na c'est un man que je di wax rek population bi bu ku ci nekk rek engagé woon protéger kenn sa waa kër mhm. ci naka. damay sol masque damay yo damay raxas samay loxo wala ma yóbbaale gel bu ma génnee balaa may dugg sama kër naa raxas samay loxo naa respecté distanciation physique bi. Mhm. booy jël oto yi booy dem marché ak foo munti dem takkal masque noonu je pense que ku nekk. Ah. képp ku ci nekk en fait affaire bi c'est un engagement personnel nekkatul affaire boo xam ne euh, ñëpp dañuy toog di xaar njiitu réew ah, Macky Sall déedéet engagement personnel boo xamante ne oto yi boo waxee takkal masque la. est-ce que ko sa waa loroo njiitu réew bi Macky Sall sa yow sa bopp nga wàll. Hmm. sa sa bopp nga lor du moins. gis nga ñàkk fay dem si ñu la nekk boo dugg bis dem dikk par force takk masque. donc pourquoi ko def. mais jël leen masque par force dugg même man moom damay takk masque fu ma jëm moom mais dugg foo xamante ne amuñu masque bu dee cinquante personnes. nga takk yore nga takk bu yàggee masque bi aussi yow yow aussi. nga takk rek parce que eeru nit ñi ngay nooyi rek. boo takkee tu as une chance doo choper. dugg ci oto nit ki nit ko neexee lu jël sax temps nëbbatu mais te boo boo xoolee mu jëppi la donc Sénégal daal mi ngi nga takk rek l' engagement doit être personnel. ku nekk na engagé wu protéger sa bopp protéger sa waa kër mm. yow boo defee noonu aadama def noonu ma def noonu. dinaa dinaa protéger sama bopp. dinaa mm. protéger ñi liggéey fii mm-hmm. sama waa kër. Mm-hmm. donc na ci ñëpp jug rek. en daal en pour pour jeexal si sujet bi dem si deuxième sujet bi. Mm-hmm. muy ki euh, li nga xam ne mooy corridor bu ñu jógee di xamante ni moom mooy monsieur Mbagnick Diop. jox nañ ko distinction boo xamante ni liggéey bi mu def si bu am solo moo tax ñu jox ko. donc naka fësalaat fii ci mbir mi teel a jël ay ay matuwaayam moom ci ministère am d' abord moo yor waa santé ba. ñu bañ a wax wàllu Covid 19 maa ngi koy rappelé baax a baax ne mhm. am na ay événements yu ñëw yoo xamante ne bu ñu ne Sénégalais yi mhm. dañuy def leneen leneen coow dina am te je pense que loolu tax Macky boobu léegi mu ne tekk tekkaala mënagul jël nga xamante ni si jëm. Mhm. waaw nga ñëw rek ci ñaari. actualité waaw ñaari bi moom mooy wàllu coowal Wally Seck rek bi nga xamante ni moom moo amoon euh, ay euh, plainte bu waxoon ne da koy déposé ba dem ne du ñaanul kenn njekk pour ñu ñëw. Mhm. Euh, pour mu retirer boobu plainte. Mhm. mu mel ne nag mu dem ba ci biir dafa mujj retiré wu parce que nee nañ ce sont des informations nee nañ ay kilifa ñu ñoo ko ñaan ak ay yenn ñoo xamante ñoo parce que ki nga xamante ni moom la Potton Pend muy euh, oustaz Makhtar Sarr moom dafa waxoon aussi ne moom amul kenn koo xamante ne mën na taxaw si ko suuf ba mu ne day euh, dellu ginnaaw si doon nga xamante ne moom moo amoon mm-hmm. ba tax ñu gis ay vidéo yoo xamante ne ku ci nekk wax nga ci am na ay kilifa yoo xamante ne génn nañ ay ay ay euh, ay page yu ñu génnee loolu mm-hmm. euh, ay preuve la ne mag kii di Wally Seck ñooñ nekk ci ginnaawam mm-hmm. ki nga xamante ni moom mooy Iran aussi wax na ci ki nga xamante ni moom mooy doom ci Serigne Abdou Aziz ñu ñu ko xam si njool Fouta moom aussi ba dem ba ni nañ na Sénégalais yi génn ña jiw di génn kaas marche ci li nga xamante ne moom mooy ñu xeex wàllu góor jigéen. Mm-hmm. donc yooyu nga xamante ne am na ci euh, boobu mbir te kii kii di Wally Seck moom taxaw na ne moom laalawul ci mbir yooyu. mais nag li ñu wax naan nit ki bu ñu lay bu ñu lay bu ñu la fekk ngay ngay lekk ci gaalu mu dal Wally parce que euh, image yi nga xamante ne moo amoon même fekkee ñëpp gis nañ image nga xamante ne am na ci ñi doon def test doon projeté mu am ay couleurs yu génn ñëpp xam nañ ne couleurs yooyu am na ci am na ci télévision bi télévision mm-hmm. paane day am ay couleurs yu génn mur xam na loolu la ñuy wax mur ah, waa ci kii donc mais lu ci mënti am Wally dafa yàgg fës ci yu ni mel mu fekkee dafa def pour buzz sol ay couleur LGBT génn sol ay yor yor sac sol yëre yoo xamante ne c'est troué du genre euh, saa su nekk sax en gros daal daa bàyyi pour poursuite yi daa bàyyi pour suite nee na bàyyi na ko parce que dañ ko ñaan njekk mais lu ci mënti am daal mm-hmm. que moom que mun lu mu ci am euh, ki nga xamante ne mooy euh, euh, oustaz Makhtar Sarr ak ñi nga xamante ñoom ñooy dinañ na seen ay gën génn mm-hmm.

anam yi nga xam ne liggéeykat yi ñu ngi koy dund surtout dawalkat yi dawalkat yi sonn nañ mhm. parce que waa ji démb ñoom liggéeykat yi bañ leen woowee démb ñu ne soxna si ñoom toll nañ euh, quinze six ans ku toog six ans ah, di amoo contrat amoo dara ah, ñu leen di dàq dàq yu doy waar mhm. dàq yi amul benn justification mu ne ku mhm. toog six ah, muñ boo waxee rek da ngaa sonn waa gis nga mbiru chauffeur je pense que Sénégal nit mënu mënu maa comprendre yow ngay liggéey ci benn structure nga def je peux dire deux ans mënuñu laa wax lu si wàllu contrat. dootina li xam mooy chauffeur. ñu nekk aftu ci dañoo sonn de moo faa te pourtant bu ñu banquee seen loxo rek nit ci dañ koy yëg non ko ñëpp yëg nañ ko métti na bu baax a baax parce que bus Tata yi doyul mhm. njege njaay nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi doxee démb euh, ak fan yi doxul baaxul aussi mais aussi loolu wax leen gis nga biir aftu boobu dafa mel ne dafa am Euh, ñàkk ju boobu am seen biir parce que bu demee ba ba nga xamante ni man euh, premier jour bi mu am euh, ñu ne grève am na am na ñeneen ñoo xamante ne dañoo daw mais seen ay morom ñu ñoo taxaw digg télé bi ne ku fi jaar dinañ toj sa oto wala dinañu dóor. organisation. donc du question organisation mais. y a un problème d'organisation. mais du question mais du question organisation nga ko lan la. man damay ragal dem grève ñu ñu dàq parce que am na ñu junniy junniy chauffeur yu nekk ci dëkk bi am na junniy junniy coxeur yoo xamante ni am nañ seen épée mais amuñu moyen dawal mhm. dañ naan waaw man su ma grève ñu dàq ma jël ñooñu man fan laay fan laay liggéey donc loolu nit ki dafay dawal xel mhm. nga ni bu ma ko bañee sama morom ñoo jël ko mhm. da nga naan kon je suis ma liggéey ci loolu parce que l'essentiel lan la weer weer na weer na jot ñu jox sama xaalis mhm. Sénégal Sénégal li muy xaar naa ay ay ñu déposé ko euh, fi nga xamante ni mooy kii di société xamalaan sociale ak ay euh, IPRES yu mel Sénégal du xaatagum loolu tànk dama ba nekk mag mhm. donc étant jeune liggéey ci benn structure nga nga ne siwa am liggéey ñu xëy jox la liggéey nga nga xëy nekk fa donc da nga naan man euh, l'essentiel man weer nañ nañ ma fay mhm. donc ay contrat yooyu yëpp da nga naan amul solo alors contrat moom moom moo lay protégé donc comme ñoom nee nañ covid bee taxoon Euh, mënuñu woon wax ci wàllu contrat depuis 16 ans ñi ñu jël excuse nee nañ Covid bee taxoon boobale mënuñu wax ci wàllu stage ay wàllu contrat yeeg yu mel donc Covid bi jeex na donc peut-être nañ accélérer mbir yi même fekkee mënuñu jox ay contrat yi ñu jox leen au moins ay CDD. Mhm. ci ñenn ñi contrat légal mooy ñu yàgg ñi. voilà ñi nga xamante ne peut-être ñu bees ñu jox leen ay mhm. ay contrat de prestation au moins ñu jëm mhm. a xam euh, naka la ñuy def ba jàppale ñooñu mais en tout cas daal tant que defuñu fusion. li nga xamante ni moom mooy Dakar dem dikk ak aftu proposition yi problème bu Sénégal du mës a jeex ci wàllu transport parce que oto yi doyul non seulement euh, fii Séné Dakar fii pour nga jël bus numéro 10 bi jafe-jafe la bus yi jëm banlieue doyul 12 doyul 2 doyul 16 doyul donc euh, dafa mel ne lépp dañ ko centraliser ci benn côté te bus yaa ngi fii ci biir ci biir angaaru biir dem dëkk ñu tëj ko fa donc jafe-jafe yi ñoo bëri ci biir transport ba nga xamante ni euh, bu amee benn kii bu ndaw bu ci am rek ñëpp a ko yëgandoo tout cas actuellement c'est pas le moment la grève surtout ak Mhm. Sénégal bu ñu nee événement rek oto day manqué paas yi day yokk tali bi day xat rawatina nag grève bu amee xaar dañ julli ji voilà bu ñëpp julli nga gis ne Dakar fu nekk ni pour ngeen jàpp si rek yéen autorité ngeen jàpp si rek fii ba au moins parce que euh, dem dikk itamit ñi ngi alerte mhm. kenn xamul nag fu ñu jëm mhm. euh, voilà euh, dañuy dugg rek ci suñu thème Mor Fall tey waxtaanee rek yaa ndaw ñi gisoon nañ ay fan yu ñu génn ay weer sax laay wax njiitu réew Macky Sall diggee woon na fi ay liggéey liggéeyoon na fi ay financement mhm. ak yeneen ak yeneen li nga xam ne day tax daal ba ndaw bi nga xam ne day wut liggéey wala ki nga xam ne daa jàng uh, ba am diplôme am amut liggéey bu mun a entreprendre dara uh, loolu ak léegi fu mu toll loolu lañ fi fas yéene woon na waxtaanee ak uh, waa club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal ñoom ban taxawaay la am ci ndaw bi nga xam ne dafa bëgg entreprendre loolu lañ fi fas yéene woon rek daal di waxtaanee. waaw voilà donc wàllu entrepreneuriat dañuy euh, xaarandi rek ñooñu ñi nga xamante ni peut-être nañ yegg si fii ak euh, muy parce que dëkk bee xaw a euh, xat lool ju liggéey ak ni mel boo teelu jug moom da ngay da bu baax a baax a baax donc wàllu entrepreneuriat Sénégal d'abord il faut ñu xam ne entrepreneuriat yàgg na si yàgg na yàgg na Sénégal peut-être dafa nekk concept boo xamante ni dafa jékki-jékki rek nekk en vogue ci presque mën nañu wax ne cinq ans ak dix ans yi nga xamante nañ génn. Mhm. mais entrepreneuriat yàgg naa am. mais ndaw yaa ngi entreprendre léegi Mor Fadam. moo damay la concept bu bees la parce que. ku leen gunge lañ amut ku leen financé. waaye ñu ngi ñoo ngi jéem de. non non jéem bi dama la jéem bi dama ne la lu bees la si ñoom. Sénégal yàgg nañoo entreprendre ñi fi am na ñu bëri ñu yàgg entreprendre bëgg dee wekku ndax liggéey amut bu am liggéey bu amul da koy créer jamono ji lañ lañ a xam naa liggéey liggéey amul bu liggéey amulee da hmm. parce que ñi fi njëkk a entreprendre ñoom ci la ci la ci la lañ commencé mën hmm. nañ wax ñi nga xamante ñoom ñooy ay ay ay ay euh, kii mbuub Euh, le ki nga xam moom moom CCBM euh, Serigne Mboup ki nga xamante ni mooy Babacar Ngom ñoom mhm. si lañ ki nga xam la mhm. daal rek la ju jox da ko commencé mhm. donc fii Sénégal yi nga xamante ni jéemuñoo sax inspiré ci ñooñu nga xamante ñoom ñoo njëkk a def entrepreneuriat ki nga xamante ni moom mooy Ndiaga ki tax ñu naan Ndiaga Ndiaye la amoon Diallo Picc ki nga xamante ni moom mooy euh, le fameux milliardaire xam xama nan nan nan nan donc ñooñu si lu ndaw lañ commencé jàll picc si mm. jàpp picc di ko jaayaat nit ñi si la commencé waaw benn juróom ak fukki dërëm euh, ba mu tabax ay immeuble am immeuble biir Thiaro Thiaro ñoom ba tuddee ko sax fi xam ne mooy Tëli Jàllo boo nee mm-hmm. Tëli Jàllo rek ñëpp xam nañu jàll picc la mm-hmm. mais ñi fi nekk jamono ji boo nee entrepreneuriat jeune bi li muy njëkk xaar mooy il faut ma dem ñu jox ma ñu financement ay millions mm-hmm. loolu la njëkk xaar boo nee financement boo ne ko am cinquante mille a ngi danaan kii mooma yàpp ma may wax wax projet bu may jox cinquante alors que cinquante mille boobu ma nga cee nga cee ma nga cee def def euh, li nga xam ne mooy démarrage. cinquante mille boobu mën na jur ay cinquante millions. cinquante euh, euh, ginaar bu ndaw nga nga yar ko au moins ba mu màgg nga nga am benn trois sacs de de d'aliments à huit mille huit mille. loolu rek en en trois mois mën nga mën a jaay lu toll ci cinquante parce que bu ñu nee bu ñu nee kii bi day def day cinquante ginaar au mois mun na jox ne. 40 yi dinañ dund yenn yi dinañ dee nga jaay 40 benn 2500 benn 3000. Mm. au moins loolu xaalis la nga am loo loo sa bopp. Mm. mais Sénégal fii koo ne euh, jeune bu day financé day projet boo xamante ne leer na ko ne projet bi xamu ci leer na mm. jàng ko mm-hmm. ko projet rek. en fait balaa ngay bind projet foog nga def étude du marché. mais est-ce que xam nañ est-ce que xam nañ ko étude du marché boobu moo lay permettre nga xool ndax sa projet c'est viable wala c'est pas viable. E-, est-ce que est-ce que xam nga. léegi hmm? c'est très ci biir module yi. mën leen nag parce que euh, par exemple nga dëkk euh, benn banlieue nga ñëw def fa projet boo xam ne euh, ñi fa dëkk soxlawuñu ko. Mhm. à quoi ça sert boobu boo ko mhm. monté même boo amee financement yi nga xam ne soxla nga ko. Mhm. boo ko fa monté tôt ou tard tu vas faire échec. da fayit gis nga gis nga loolu noonu dama ñëw si leen gis nga. même ba li ñu naan entrepreneuriat Sénégal ni ñu ko jàngalee dañu yaakaar ne entrepreneuriat mooy ñëw rek ne la waaw lii mooy entrepreneuriat ça la définition c'est pour monter au projet c'est alors que entrepreneuriat dafa dafa nekk genre mën nañu wax ne matière la bu am ay module ci biir. Mhm. parce que ki nga xamante ni day monter projet. Mhm. il faut mu defe ji enquête. Mhm. ci ci li muy def lan la. moom lay wax ban secteur la. yan euh, euh, critère moom mooy tax mun taxawal. ak fan laa ko war a taxawal ak fan la war a am. voilà day mel na nga ni. parce que euh, gox bu nekk ak lu mu soxla. waaw day mel na nga ni dem naa fi nga xamante ni moom mooy jam ñaajo. nga xool jam ñaajo dëkk bi ni mu tëddee. lan nga yaakaar ne fii boo ko fi defee daf fi day dox normalement. wala nga dem fu mel ne comme Fouta a nga Fouta mën nañu wax ne euh, pataas dafa bëri. Mhm. mais jeunes yi est-ce que est-ce jéem nañoo sax di def lu mel ne ay ay ay ay chips. à partir li nga xamante ni moom moom mooy pataas boobu. Mhm. jéem ñu ko essayer. Mhm. Euh, am na ko mos a expliqué fii mu ne on fait de la moutarde. Sénégal di ko jaay moutarde fu nekk. moutarde ay grains yu ñu jël nii rek la. donc pourquoi pas li nga xamante ni moom mooy suñu fameux euh, bëjëg bi. sa <laughs> ça peut ça peut être loo xamante ni mën nañ ko mën a def comme des comme comme moutarde bi jaay di ko jaay un partout dans le monde. mais sénégalais pour mu wala jeune sénégalais pour mu entreprendre moom bu jëlee bu xasee ba investir li nga moom mooy bu investir sax benn un million. mi ngi naan avant investir il faut que j'achète benn iPhone ay 12 pour instant bi maa ngi high level. parce que am na am na ko mos a expliqué koo xamante ne français bu ñu doon mun nañu est que defoo la seen xel na yéen. boo boo investir rek ci saa si da war daw oto da nga war am kër gu rafet da war a yor oto mu ne fii la mës a gis chômeur sénégalais boo xamante naan man j'ai pas travail mhm. l'état boo xamante ni bu ko jaayaan mën na ci mën a investir dara <laughs> na na fi de ba damay xamante ne banlieue dañ naan man non man gaañ na aw ma aw ma job quoi mooy aw ma liggéey alors que ngi yor iPhone boo xamante bu demoon jaay ko mën na ci mën a investir mën na lan mooy lan mooy mooy iPhone yow yaa ngi bëgg a luxe de luxe xanaa xamoo man bu may entreprendre man je préfère commencer ak benn cinq mille francs wala dix mille francs moo ma gënal commencer ak ay millions. Hmm. mais boo commencé lu bëri da ngay gaaw daanu parce que. mu ngoog parce que li ndaw li ngay li ngay kii da ngay gis évolution bi ni muy demee. voilà boo ñëwee rek vision vision parce que état bi li mu mën mooy. Mhm. teg na fi ay ay structures. Mhm. bu ñu nee ANPEJ. Mhm. ñëpp daw ne ANPEJ yaakaar ANPEJ day day day finance alors que ANPEJ ne finance pas dañoo dañoo ne agence nationale pour la promotion de l' emploi des jeunes. foofu sax mënuñoo wax ne pour la pour la promotion la wax. promotion mooy lenn da nga ñëw déposer dossier. mu ñëw gis li nga xamante ni moom mooy. Euh, euh, mu gis li nga xamante ni moom mooy euh, benn opportunité. travail mu ne la gis naa opportunité travail. ñi nga xamante ni ñoo ñoo am profil bi mën nañu mën nañu déposer. Mhm. mais dafa faillir à sa parce mhm. que bu ñu promotion de l' emploi des jeunes moom li mu woon def mooy képp ku dépose dossier mu jël dossier yëpp def ko par classe. Mhm. ki nga xamante ne am nañu ñëw entreprise yi ñëw ne ko damaa soxla benn benn gestionnaire mu xool dossier yi nga xam ne ay gestionnaire lañ. critères yi mu soxla mu woo personnes yooyu na leen ñëw leen jour temps ngeen jàkkaarloo li nga xamante ne moom mooy euh, recruteur bi ngeen liggéey si moom mm-hmm. ngeen mën a waxtaan moom directement parce que je pense que monsieur Mbagnick Diop laa fee ci forum de l'emploi bi mm-hmm. dafa woo recruteur ñu toog jàkkaarloo ñi nga xamante ne ñoom ñooy ut emploi nga toog jàkkaarloo ki recruter parce que mm-hmm. loolu mooy jafe-jafe bi mais buñ ne ah, eh, yaa ngi def promotion de l'emploi euh, ci leen ak leneen DER bu ñu nee. Euh, euh, structure yëpp dañoo dañoo dañoo à leur mission. parce que peut-être dañ koy jox ñoo xamante ne xamuñu mbir mi. Mhm. donc je pense que ki nga xamante ne peut-être que moom xelam màcc na ci loolu muy Papa Tanor Dieng. Tanor Dieng voilà je pense que il beaucoup plus à l'aise pour ñëw ci jafe-jafe yooyu parce que je pense que <laughs> Sénégal moom fi mu nekk nii tant que jeunes ngi am esprit yu ne man. Euh, entre commencé na entreprendre rek foog ma yor ay oto oto bu rafet foog ma yor kër gu rafet pour ne instant bi je suis entrepreneur mhm. euh, comme ni ñu koy waxee suñu suñu suñu papa Ndio Kébé mhm. euh, benn anecdote boo xamante ne am na ku ñëw këram doon seet si euh, papa Ndio Kébé fekk kër gi ne ko borom kër gi lay mu ne ko aksil mu ñëw dugg si biir mhm. ñëw rek fekk paa bi toog mu ñu romb ko dugg ci biir fekk paa baa ngi sol jaalum tissu yu xaw a ñàkk ñàkk fee te mu seet si Ndio Kébé mu ne ko

reste euh, une vingtaine de minutes. Ouais, ouais. Mais bon, Euh, yàllaa ko bëggee nii. alhamdulilah. <laughs> ñu bàyyi la nga nuyonteeg mbokku déglukat yi. Euh, merci beaucoup man la Papa Tanor Dieng fondateur au club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal. Mm-hmm. alumni du CRL Yali Dakar le le Yali c'est le Young African Leadership Initiative Factory de Barack Obama. Mm-hmm. voilà c'est c'est tout ce que je pourrais dire après peut mm-hmm. mën nañu gën a tontu. Euh, donc dañ koy def bu gaaw rek. exactement ndax ñu desal ci minute bëriwul. exactement CLES c'est le club de leadership partenariat du Sénégal euh, yéen a ko créé. exactement mhm. euh, lu doonoon seeni motivation ba ngeen taxawal club boobu. merci beaucoup pour cette pertinence de question ñun dañu ni Sénégal dañu nekk ci benn système éducatif boo xam ni. ça ne répond plus aux normes yi nga xam ne moom la ñuy xaar si xale bu nga xam ne danga ko yóbbu école su amee vingt trois ans peut-être mu am bagam ba après am licence am. Mhm. lan la war a def. ñu xam ne xale yi jàngaluñ leen ko. dañ leen di teg si benn système boo xam ne c'était bien fait pour que xale bi dem ba trente ans trente cinq ans pour soog si mën a génn nga dem France nga fekk fa benn xale ba am vingt trois ans mu mën si génn nga cumuler ñaari xale yooyu ñoom ñaar ñëpp vingt trois ans lañ am kenn ki mi ngi jàng keneen ki mi ngi ciy génn boppam loolu dara waralu ko lu dul système bu ñu mooñal depuis avant soixante bàyyil ñu ko fi amuñu nguur bu mën a taxaw pour jéem si dara ñu découvrir benn modèle boo xam ne day dox ñu xam ne si deux mois mën nañ la ko ci jàngal nga génn si pourquoi pas donc ñu mën ko instaurer si suñu système éducatif mm-hmm. ñu xam ne si école sénégalaise yi am na ñuy wax ay club allemand club anglais club espagnol mm-hmm. ñu ne pourquoi pas insérer des modules yoo xam ni ay club yoo xam ne dina la mën a wax jeunes yi que c'est l'entrepreneuriat yàlla chemin et c'est le leadership qui permet à l'entrepreneur de pouvoir booster son chemin. Mhm. ñu ni kon il faut ñu créer lu ñu luy cumuler ñaar yooyu c'est le mot clé génn muy club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal. d'accord mhm. euh, club boobu noonu euh, foo leen nekk vous êtes présent dans toutes les écoles fii ci Sénégal. bon man mi nga xam ni ma ko créé je suis Thiessois. mais je fii la fii la màggee yaroo fii mm-hmm. mais je me di dit que Dakar lépp mu ñu fi concentré il fallait que ñun aussi ñu décentraliser les choses si lañ mm-hmm. ko yóbbu Thiès dem si ay lycée ay jeunes yu war a def bac dajale leen bu ñu leen dajalee defal leen séance de motivation si la ñu am quelques jeunes ñu taxawal bi hmm. mais néanmoins on est siégé ici à Dakar au CEDEPS de Dakar en même temps aussi à Thiès au niveau du euh, du centre Bavière euh, de de l'ONG GIZ. d'accord exactement. ok hmm. léegi parce que euh, nee ngeen da ngeen euh, dem ci lycée yi donc yéen euh, naka ngeen di approché li nga xamante ne moom mooy les les lycéens parce que ku ne lycéen ki am bac day pare naan la man xaw laa war def. wala wala je veux aller à affaire donc yéen ban ban ban ban waxtaan ngeen waxtaan ak ñoom pour mën leen a euh, jox benn aperçu ci lan lan lan mooy le monde euh, de l' entrepreneuriat. waaw parce que dañu am chance su nekk si réseau bu ñuy wax réseau des alumni du CERELIA de Dakar muy réseau boo xamante ni euh, ki ñuy wax Barack Obama moom ginnaaw mu nekk américain dafa jàpp ni africain la mu créé ay CEREL yoo xam ne si carte Afrique yëpp la nekk ci loolu muy formé ay jeunes jeunes yooyu muy formé ñi da leen di formé civic leadership nii public management ñi mu formé leen lu ñuy woowee Euh, business and entrepreneurship man si promo boobu laa génn. Mm-hmm. donc ñun module yooyu ñu ñu jox si deux mois dañu koy jëlaat exploiter ko transmettre ko ay jeunes. Mm-hmm. donc jeunes yi da nga leen di fekk avec la tête ci ay géographie histoire et cetera mais da ngay ñëw nga ni leen kaay kaay xam sa bopp kaay gëm sa bopp kaay demal sa bopp. bu loolu weesoo nga ne xale bi xalaatal lépp loo mën a xalaat si àdduna nu mu mën a mel nu mu mën a toll jël si sa temps am si lu ñuy wax passion am si persévérance gëm ko mais si tu l'établis avec une étude bien profonde maa ngi jéggu si français bi étude bu bu xam ni xóot na si loolu noonu war nga si mën a teg dara jël si sa temps nag dem ak moom ba fi nga bëgg a egg nga egg fa mais traceel yoon bu leer donc si loolu nag dañuy lancer ay formation gratuites souvent de jël comme Covid dafa ñëw changer monde bi mm-hmm. on est obligé ñu nekk si ligne bi mm-hmm. donc tous les samedis presque dañuy lancer ay formations gratuites si lu ñuy wax développement personnel lu ñuy wax leadership si lu ñuy wax entrepreneuriat pour permettre jeunes yi ñu xam ni ces modules là mooy à la base lii permettre nit ki xalaat bu mu mën a xalaat si mm-hmm. àdduna mu ko établir soo demee États-Unis ki ñuy wax Mark Zuckerberg tey bu muy taxawal lii il avait Facebook il avait juste pas euh, dix la amoon. Mm-hmm. su ñu jëlee ñi nga xam ne mooy Bill Gates wala ñu jël ñi nga xam ne ñoo def Microsoft ko ci jël si âge boobu la dem. Mm-hmm. mais ñu xam ni kon système américain moom leer na ko ni lu muy yóbbu doomam mooy si luy réaliste loo xam ne après day déboucher à quelque chose. Mm-hmm. ñun Sénégal on a hérité la France si lu ñu yóbbu lépp lu nga xam ne dañuy théoriser moo tax aussi Sénégal boo xoolee njublang daf fi yomb. mooy nit du coup si lépp nga bëgg réussir te kuy réussir si lépp amul yàlla rek moom moo ko mën kon doomu aadama bu nekk dañ la war a tracer ce loolu moo waral ñun bu ñu dem si xale yi dañ leen di jox li nga xam ne loolu lañ soxla le minimum c'est le développement personnel mhm. l'entrepreneuriat le leadership l'entrepreneuriat et tout ce qui est TIC tey loolu moo indi tey xale yi lépp lu nga xam ne moo nekk si clé ba nit ñi di ci wax xale yi ñoo koy defal seen bopp te loolu c'est grâce aux personnes yi nga xam ne tey ñoo nekk ci réseau bi nangu jël seen xam-xam bu ñu mënoon a jaay si ay cabinet de formation war ko jaayee entreprise war ko jaayee keneen keneen ñu ni kat clé geste bu noble la dañ ko fay investir gratuitement mmh. loolu la ñuy def. Euh, kañ ngeen créé club bi. 2019. 2019 yàggul ngeen a am. actuellement on est plus mais à Sputnik ñi nga xam ne ñu ngi leen di surveiller ils sont à peu près trente trente personnes. Mm-hmm. soixante personnes. donc seen seen euh, zone d' intervention dafa yem a ngi liggéey lu mel nga xamante ni moom mooy euh, euh, genre mairie yi ak li nga xamante ni mooy communes yi ngir mën de au moins ñu offrir des des des de de formation seen ay seen ay jeunes yi ne seen localité. wala boobu léegi am kenn koo xamante ne approché na ngir au moins gën a mën a jëmbal seen yi nga xam ne yéen a koy offrir euh, pour euh, la jeunesse sénégalaise. ku ni jàng ni institution. duñu ni 2019 ba léegi demuñu ci mairie Thiès Est fi nga xam ni fa lañ commencé. Mm. ils n'ont jamais appuyé. Mm. ñu ni 2019 ba léegi demuñu ci mairie Thiès ville ils n'ont jamais appuyé. duñu ni deux mille dix 2019 ba léegi demuñu ci ministère de la jeunesse. euh, en particulier madame Néné Fatoumata Tall je maa ngi koy lancé appel ils n'ont jamais appuyé mm. benn yoon la ñu mës a appuyé muy ministère de l'économie numérique c'est récemment quand on faisait des jeunes yu ñu formé ba pare ñuy présenter seen projet ñu envoyé ñu enveloppe bu francs mm. su dul loolu. Mm. xale yi ñooy cotiser téeméer weer bu dee bu jot ñu dajale ko. Mm. formation yu ñu mën a def ci lañ koy def mais mm. institution yi nga xam ne ñoo ñu war a jàppale. ba ci ANPEJ tey mi ngi yor plus de six projets de nos jeunes ñu ñoo leen formé ba ñu bind ko. ñu demande leen lu dul étude technique. ak d' accompagnement jusque là ça plus de six mois ils n'ont rien pour Donc, dire vrai ah approché nañ leen mm. Mm. mais mais ils n'ont rien fait du ma ne bugguñu mais damay naan defuñu mm. ba keroog may xam lu nga xam ne looloo si nekk mais de façon xam nañ ñu DER approché wuñu leen parce que ñun gëmuñu DER gëmuñu DER parce que notion wu entrepreneuriat la rapide mosuñu ñu ko jàngal te aussi ñun nekkuñu ci approche wu demal ñu jox la ay millions pour ñu financer la nga liggéey en fait du système buy dox ñoom xam nañ si dara mais ñu ngi koy continuer système bi nga xam ne mooy dox moo xale bi bala nga koy ni kaay financé la ne ko kaay ma formé la tey DER fonctionnement bu mu am c'est pas un bon fonctionnement mm. et malheureusement même le directeur aujourd'hui j'ai son numéro de téléphone tu l'appelles plus de mille francs mille fois il répond jamais tu déposes des courriers au niveau du dissident organisation yooyu rien pour les approcher ils, ils ne font rien mm-hmm. mais ñun dañu ñu teel a jàngal ni mm-hmm. du doomu aadama bu yor ci institution rek moo tax nga mën a dem moo tax gëmuma jeunesse su Sénégal buy taxaw naan état état état état ne pourra jamais faire ce que vous voulez mm-hmm. si vous en tant que jeune yaay am conscience bu toll ni demal sa bopp xam ni ñoom nu ñu def ba egg fu ñu nekk avant amuñu ko woon yow da nga war a fight sa life ba egg fu nga ne moo tax képp ku nga xam ne mu ngi taxaw tey di di lëndëmal jeunes yi si seen xel naan leen man may defar réew mi Sénégal bi ñu nekk nii kenn du ko defal ku dul kenn ku nekk nga jóg demal sa bopp jéem a defar dara sa bopp ànd ak ñeneen defar réew mm. donc fu nekk nii ko ne ce kon li wax sànq lii dañu jëmbal ko parce que da ne suñu système français bi fi nekk boobu moo tax ba léegi Sénégal mënul dem fenn. parce que euh, système américain ba léegi ñoom boo ñëwee liggéey dañ naan la euh, loo mën la ñuy wax. lu ñuy wax ba nga am donc fu nekk nii dañoo am système boo xamante ni daanaka lépp luñ teg du am du am du am benn aboutissement lu ci mel ne mm. DER lu ci mel ne ANPEJ lu ci mm. mel ne euh, FONGIP ak yeneen ak yeneen donc est-ce que fu nekk nii euh, dañoo théoriser li nga xamante ni moom mooy yooyu yooyu yooyu programme moom moo waral liñ ci war a am dëgg-dëgg amuñu ko ci. exactement on passe plus de temps à théoriser et mieux soo demee ci administration sénégalaise la première chose bu lay wax. dañ naan la lenteur administrative tey on parle de l'État on parle pas de du ñu wax ci suñu ay affaire institution administrative ñu fay nekk ils sont pas des partis politiques mhm. c'est des sénégalais yoo xam ne dañu fay ci seen jàng mhm. c'est des sénégalais yoo xamante ne dañu financer seen kopparu papa ak sama kopparu papa la ñu jël di leen ci fayal jàng ba ñu nekk ay administrateur civil tey ñooñu ñoo yëngal Sénégal ñooñu ñoo tardeel Sénégal mm-hmm. parce que benn document bu ndaw boo déposé tey pour nga déposé ko doo dem 9 heures di ko déposé da ngay xaar ba 11 heures di ko déposé cest à ko que bi moom il attend 11 heures pour mu dem bureau am mm-hmm. kooku bu mu 13 heures jotee day wàcc pose lay dem bu ñëwaatee 15 heures 16 heures mu dem sénégalais du liggéey. Mhm. après ñu bëgg ni lépp day day sotti du sotti parce que sénégalais bu nekk fa nga nekk fa nga war a commencer sa développement. Mhm. sinon on continue à se faire dañuy nax suñu bopp après bu ñu paree ñu dem si stress mooy sénégalais tous tasar bu ñuy wax si la dem après ñun ñëpp ñu fàtte suñuy problème mais ñu di résoudre. le Sénégal fii ak dix ans il faut que ñu xam ni pour ñu construire que ñun suñu ay doom la ñuy tabaxal suñu bopp. Mhm. ñun suñu wàll dafa wéy. mais donc est-ce que est-ce parce que wax nga ko sànq ne suñu université yi la fa nekk moom mooy loolu. mais nekkul esprit euh, Sénégal ne moom moom moo archaïque ba fi fi mu nekk nii euh, pour ñu génn ci euh, guuta gi ñu dugg euh, du yomb. damay sant yàlla bi ma bi nga bi ma ñëwee di ñëw dégg ngeen di tudd ay turu doomu adama bi may ñëw maa ngi koy dégg. Mm-hmm. Mm-hmm. yéen a ngi tudd mbay kii Mbuup. Mm-hmm. Serigne Mbuup maa ngi dégg ngeen di tudd ñeneen. Sénégal fii ñi fi am milliard mën naa la ko tuddal. koo ci jël daara la jaar. chance bu nitu daara am chance bi universitaire bi am bokkul. si université bi boo jëlee million boo jëlee cinq cent yi ñoo ciy rëcc. Hmm. ñi ci des dañuy tàppa tàppa après ñu takk jabar bon après seen vie daanu. Hmm. ñu jóge ci daara demal kolobaan demal Sandaga. xoolal ñi nga xam ne tey ñoo taxawal ay entreprise mun naa la si tuddal tur ku mel ni Abdoul euh, monsieur Dia bu Sénico mun naa la si tuddal euh, ng euh, Mbaye Guèye bi nga xam ne mooy yor oto mun naa la si tuddal tant de personnes yoo xam ne tey kenn ku ci ne xam nga si lu mu commencé dafa commencé si dix mille yor boutique mbagam teg di teg di teg di teg di teg di teg di teg ba tey mu nekk milliardaire mm-hmm. ñun àlin si suñu école yi dañuy jàngal veste jàngal ñu cravate jàngal ñu costume jox ñu xam-xam bu dul jeex mm-hmm. après ñu jàpp ni ñun ñoo gën a muus ñëpp Mm. loolu noonu tey moo tax boo xoolee jeune bi dina xaw a dem ba quarante ans quarante cinq ans di soog am maturité ni ah attends je me des ba may wàcce sama bopp. Mm. mais lii problème bi. Mm. mooy diggante vingt trois ans ba quarante cinq ans moment bi ngay perdre sa temps nitu daara bi si diggante boobu moom mi ngi jóg ak daanu ba egg fu mu jëm. dafa dem ba nga xam ne ñooñu nga xam ni ñooy société bi pour ma wax la Sénégal li ko tax a teree dem. génération bi am vingt trois jàpp quarante cinq nekk ci système éducatif sénégalais. Mm-hmm. tey fu Sénégal tardé. du ma ne leen politiciens yi ñoo ko tardeel de système boobu ñoo ko tardeel te loolu dañ ko togg avant 1960 pour résoudre ça ce serait très comprendre ce très compliqué mais avec une jeunesse très consciente bi nga xam ne teel na xam ni moom moo ci mën a génne boppam mm-hmm. loolu mooy solution bi te loolu nag moo jafe parce que on nous ment mm-hmm. ñii nga xam ne ñoo ne ci politique bi muy opposition comme pouvoir dañuy mantir société bi amuñu solution doxuñu sax ci solution parce que solution boo ciy dox da koy indi mu nekk preuve bu palpable nga teg ko ci kanamu sénégalais yi. Mhm. muy opposition danaan état bi lu muy def baaxul moom lan la def. muy pouvoir danaan opposition bi dafa ñàkk fayda moom état bi lan lay xaar ba opposition bi ñëw di ko teg yooyu. Mhm. ñoom ñaar ñëpp ñoo yem ci man. Mhm. dama jàpp ni. c'est la jeunesse sénégalaise qui doit se réveiller tous les jours muy wutal boppam solution du état du opposition ku koy solution donc la solution doit être personnelle donc la solution débute chez vous mm. dans votre quartier. Mhm. dans votre commune. Mhm. dans votre région et partout au Sénégal. nga xamante ne moom mhm. mooy sama genre ne dañ naan mooy juste à l'université ñu fay la benn euh, bourse deux cent cinquante mille wala bu bien trois cent mille amoo leen looy xaar nga a def doo investir nga jënd ji benn ñaari nit xeer. benn bi xale yu jigéen ñi la macha allah. rafet nañ taaru nañ. ñoo fi ëpp mais chapeau à su Sénégal di yàqu si yéen lay jaar. est ko pare <laughs> naa ni des na. <laughs> ñu baal ma. Mm. ñoom bu Sénégal di yàqu. ci ñoom lay jaar ñoo fi ëpp. mais bombe à éclatement bi war a ñëw. si xale yi jigéen ñi lay jaar parce que benn. Mm-hmm. xam-xam bi ñu war a wuti. ñoom ñoo ko war a gën a xëccoo ndax ñoo fi gën a bari. Mm-hmm. mais wutiwuñu ko. compétition bu ñuy def. mooy compétition bi gën a dangereux te ñu ngi liggéeyal ay commercial yu ay nit yoo xam ne ñu ngi yor ay milliards ñoom ñoom la ñuy dëkk di liggéeyal TikTok Facebook Instagram si photo wu taal musique mel ni dof teg ci tey loolu noonu ñuy def loolu mu nekk loo xam ne c'est le danger bi nga xam ne moo nar a yàq senegal di dix ans te ñoom ñu ngi ko topp amuñu arrêt beneen mooy étudiant yi te góor ñi en particulier mhm. su dee dañu jàpp ni toog université jàng ba nga xam ne moo ne ar loolu c'est obligatoire dañ ko war a def waaye concentré wu si jàng uniquement ba pare di soog wut solution mooy seen solution ñoom mhm. nañu jàpp ni c'est les dix pour cent qui vont réussir le reste mhm. muy les quatre vingt pour cent c'est eux qui vont être les bombes à éclatement d'ici d'ici dix ans te loolu la solution day jóge si suñu parents yi dem si suñu doom yi egg si état bi pour solution finale am. Mm-hmm. donc d'ici dix ans. Mm-hmm. ñun ñëpp nañ jàpp ni. Mm-hmm. politiciens yi ñun ñuy nax. ñun ñu ngi nax suñu bopp. mais suñu waajur yi ñoom ñu ngi ñuy yàq. d' accord mais borom bourse bi na tey tey bëri na ñi nga xam ne dañuy entreprendre. exactement y en a tellement. góor comme jigéen bëri na ñuy entreprendre. mais à chaque fois bu ñu demee ba un certain moment day mel ni y' quelque chose qui bloque yow en tant que euh, yow tu évolues dans le domaine de l' lan mooy bloqué. waa xam nga dañuy yar si yàkkamti man su ma yoree cent mille su ma ko tegee tey pour man suba rek war naa commencer noos mhm. malheureusement ku ci commencé tey bu subaa deux ans du yàgg nga daanu parce que mhm. tout simplement le processus d'enclenchement de l'entreprise mooy li tax nit ki mën a euh, dem mën nga entreprendre si deux ans mais du tax nga réussir si mhm. deux ans yooyu mooy amorsage léegi yow su dee si diggante bi ngay amorcé li ngay bëgg a def si nga bëgg riche. Mhm. doo dem la problématique bu nga xam ne problème bi nga xam ne moo nekk si affaire problème entrepreneuriat aujourd'hui ñëpp bëgg nañ. Mhm. mais li leen tëlee mooy yàkkante te dafa am ñetti pay yoo xam ni. tant que jëluloo ko doo si dem. Mhm. passion patience persévérance mais dans le temps. ñett yi nag mënuñu ko am parce que pression sociale bu si suñu biir kër yi. Mm-hmm. moo tegu si suñu ndodd tegu si suñu bopp ba nga xam ni kut ko kut dañu bëgg réussir. kut ko kut bëgg réussir boobu si yàlla la dépend am na ñu ci ñu ciy rëcc. Mm-hmm. mais majeure partie bi duñu si dem pour pourquoi pas parce que simplement dafa am lu nga xam ne moom moo jiitu. Mm-hmm. booy teg escalier il faut nga teg benn par benn ba egg si kaw. su dee nag tey danga bëgg a teg tey dara suba nga egg ci escalier yooyu c'est c c'est la fin. lu nga xam ne mooy solution bi mooy modulu leadership. modulu entrepreneuriat modulu technique d'information et de communication mm. doit être inséré dans le système éducatif dès le collège mm. pour solution durable am parce que lu ëpp ci xale yi ñu ngi jàng ci école yi y a pas de solution mm. mais la solution c'est que DER bi ñu jël ay milliards def ko ci ñu jëlaat DER boobu ñu jëlaat xaalis ba fa nekk yi ñu xëpp ko ci système éducatif sénégalais solution bi dina ñëw mais du léegi dans dix ans Euh, lan mooy euh, kii bi donc euh, clé bi pour réussir. pour réussir mooy lu ma la wax ñetti pays yi. ayee nit ki bu amee idée de projet war na am capacité pour bind ko ñu ko wax am ñu tuuti lañ mais nit ki war na projeté six mois lan laa war a def su ma amee lii lan laa war a investir notion investissement réer na bépp nit bu ni entrepreneur nga. Mhm. loolu nag moo indi euh, lu ñuy dal toujours parce que mhm. da ngay bëgg a commencer dara suba nga noos après da ngay commencer à zéro roue boobu noonu nag pour mu deñ nit ki ginnaaw nga am idée ginnaaw nga bëgg a idée bi en place mhm. nga teg li nga xam ni moom mooy jalon yi pour dem si mhm. fexeel nga du mooy lépp lu nga xam ne mooy bànneexu bakkan ak bëgg-bëgg àdduna parce que da nga am objectif pour taxawal lu ngand suñu ko defee c'est sûr et certain que dañ ciy génn ku jëloon tey fii ma toog nii nga teg fi ku ñuy wax euh, Serigne Mboup hmm. nga teg ko fi mu lay wax lu mu def ku jëloon fii tey ku nga xam ne moom la ñuy wax ja hmm. muy si borom seeni ko nga laaj ko nu mu def di mës na ma jàngal hmm. xam naa bu ko déggee dina ko comprendre jàngal na ma arabe su ko soo ko jëlee tey nga fekke ko nga ni ko nan nga def ba egsi fii su la ko nettalee yow da nga naan kon mënoo entreprendre parce que résistance ak foi ak conception ak croyance bu mu amoon ci projet mhm. ak processus bu mu ci teg ba egsi fii ñu ko mën a def ci Sénégal bu ñu jëlee ñaar fukk benn nit lay doon mhm. kon ça veut dire que sénégalais dañ ko teel a tàyyelloo ci teg ay jalon pour egg ci objectif am mhm. euh, pour rapidement may ma rek moo wax fa euh, am ngeen ay projet yoo leen di waajal au niveau du club nga ñëw exactement tey jii am nañu chance formé ci diggante bi 2000 février ak léegi ay jeunes Euh, mu am si ay jeunes yu bari yoo xam ne tey dañu am ay projet benn bi mooy Easy Travel mooy mooy benn groupe boo xam ne ñoom ne nañu bëgg créer ay application pour nit ki bu bëggee voyage fépp si Sénégal si application boobu lay jaar mm-hmm. pour mën a euh, commande ticket am ñoom ñu yónnee ko oto buy dem ba ñu yóbbu ko mm-hmm. c'est innovant Euh, mu am kenn koo xam ne moom nee na produit halieutique la bëgg jël defar ko di dem si nit ñi di jëm di ko jënd di leen ko placer di leen ko apporter seen kër yi mhm. au lieu que nit ñi di demal seen bopp ci marché yi ñoom ñoo koy defar defar ko ba mu normal mhm. à produit accessible ñu indi ko perte de moyen la am nañu boo xam ne mi ngi daw actuellement c'est en cours c'est à Thiès mhm. euh, ñaari jeunes kenn ki Ousmane Fati la keneen ki euh, euh, Cheikh et ñoom ñëpp ñu ngi dajaloo ci benn projet bu ñuy wax projet aviculture ñu tuddee ko seen ginaar ñoom yi aussi dañuy jël ay ginaar yar ko ay élèves lañ mhm. mais bu ñu xëyee dañuy dem jox seeni ginaar ñu lekk suñu wàccee dem joxaat seeni ginaar lekk bala ñuy tëdd jox seeni ginaar lekk te dañuy xëy di jàngi mhm. ay élèves ñoo koy def mais malheureusement non notre institution yi nga xam ne ñoo fi nekk institution publique yi bind nañu yóbbul nañ leen def nañ ko après on a compris mm-hmm. Mm-hmm. que ñoom ñëpp seen bopp lañ fi nekkal. d'accord sa mot de la fin. mot de la fin mooy nañ ñu jàppale. Mm-hmm. nañu ñëwaat si lu ñu yor yor nañu loo xam ni ñoo ko togg de dëgg la. fa ñu ko jëlee dañ ko àbbi dëgg la mais dañu doon wax ni xam-xam boo ko soxlaa wuti ko ba Chine. ñun wutee nañ ko États-Unis mais lu ñu yor. lu ñuy ot mi ngi Sénégal ci benn projet bu ñuy wax Apte Sénégal ministère de l'éducation national tey mi ngi may dégg. Mm-hmm. am na fa neuf modules yoo xam ne ñun dañu ci woo ñu togg ko ak ñoom. Mm-hmm. Apte Sénégal Mastercard moo ko financé pendant cinq ans. Mm-hmm. projet bi jeex na dañuy ñaan ngir yàlla. ministre de l' éducation nationale na jël module yooyu mu dugg ko système éducatif bi ñun suñu doom ñun bu ñu réussirul sax suñu doom bu ñu juddoo. ñu jàng si module yooyu nañu ci jàppale. nañu ci koy jaajëfal rek ci euh, li nga xamante ne teew na fii je pense que li ñu bëggoon développé yëpp kii ñu ko mais benn lance laa lancé benn appel ñi état yi bu ñu jël lépp ne képp ñu ànd la war a war a politique nañ jàppale genre yi mm-hmm. jeunes yi nga xamante ñoom dañuy dañuy idée ngir ñu mën a xam fan lañu mën a jaar ba réussir mm-hmm. euh, beneen conseil mooy sama mbokk étudiants yi ku ci jot sa bourse demal investir léegi ba ci jënd ay iPhone ak yu ni mel je pense <laughs> <laughs> merci beaucoup di nuyu waa CLE ñu ngi may suivre en direct. Mhm. di leen wax ni kontaan naa si ñoom. Mhm. ay xale lañu ay élèves lañ. c'est très dur. Mhm. pression bu ma leen teg du sax pression sénégalais. mais dékku nañ ko ba tey ku ci dugg février. su décembre jotee ñu xoolaat la. mën la référencier par rapport aux jeunes mhm. les mieux impactants mhm. loolu rek laa doon am di leen ko remercier ni leen ñoom mhm. si sama xol lañ ne mission bu ñu nekk di def nii ñoom ñoo tax ñu continuer ko je vous remercie merci beaucoup Tanor Dieng moo di cofondateur euh, CLES le club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal euh, ñu koy gërëm bu baax a baax euh, di gërëm mboole mbokk déglukat di gërëm Adama mi fete ci cabine technique bi mbokk ñu ngi leen dig daji mercredi di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak